waaye yow mii di ñu topp ci tiktok bi tamit su fekkee abone goo li ñu lay ñaan moo di nga abonné abonnement bi nag jafewut plus bi nga gis noonu képp ngay laal abone nga waaye tamit email vidéo bi loolee dina yokk doole kër gi revue de presse bi ñoo ngi ciy ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare Serigne Cheikh Ndiaye Njare nag Serigne Lasrar bu yàlla baaxal la yàgg ngeen ko dégg fii ci kër gi moom nag dafa indi xabaar bu neex jagleel ko ñi muy jëflanteeg ndax Serigne bi tourne bu mag la bëgg a amal ci weeru septembre jàpp weeru octobre tournée boobee bu jugee ci Sénégal réewu Gàmbi lay njëkk a dem fu ñu naan Sénégambia fa lay dal kon waa Gàmbi xaar leen ko foofee waaye bu jugee ca Gàmbi dina wutali réewu Maroc Maroc googee ca Casablanca lay dal kon waa maro xaar leen Serigne Cheikh Ndiaye njare waaye bu fa bàyyeekoo dina wutali réewu France France nag bu fa demee ca Paris lay dal waaye nee na ma Bordeaux nag munuma ma faa ñàkk a dem ndax Bordeaux googee am na ñum fay jëflanteeg waaye bu bàyyeekoo ca réewu France ma ngay wutali réewu Allemagne dëkk bu ñu naan Berlin nag fa lay dal bu demee ci réewu Allemagne kon waa Allemagne waajal leen bu jugee Allemagne nag réewu Espagne lay wutali ca capital ba di Madrid nag lay dal waaye fi muy tëjee tournée boobee moo di ca réewu Italie Italie googee ca Rome la sëriñ bi di dal kon nag waa Italie waajal leen tourne boobee nga xam ne sëriñ Seex Njaay Njare war na koo amal moom sëriñ Seex Njaay Njare nag dina yëngu ci mbir yu bari lool bokk na ci tawat yi sonal askan wi. bokk ci hémorroïde ndoxum siti ak néew kattan ci ñi ma ko sañ a wax waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu listixaar noo bit yàlla may na ko ci. sëriñ bi tamit am na ndomba yu baax ngeen jëflante ba mu jox la ndombo yooyee di nga xam ne kaaraange ngi ci waaye ku ne tukki tamit di nga wax passeport wàllu passeport it yàlla may na ko ci lool waaye tamit am na beneen saafara bu doy waar saafara boobee day maye xaalis bu ngeen jëflante ba mu jox la ko yàlla dëppale seeni mbir di nga gis ne yow mi coppite am na ci sa wàllu am-am sëriñ bi nag pour nga jokkoo ak moom ni ngay def lu yomb la numéro bii ma leen di waaj a jox ci ngeen ko mën a woowee moo xam whatsapp la wala appel muy 78 475 27 82 numéro boobee la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare képp ku jokkoo ak moom yàlla na sa aajo faju ñu door revue de presse bi dooree ko groupe Futur Média fekk fa record yéene kay ñancoo Sadio Mané la journal bi fësal ca wu njëkk wa journal bi nag dafa sampo ab laaj jagleel ko doomu Sénégal bi lan moo ko dikkal fan yi maanaam lan moo dal doomu Sénégal bii di ñancoo Sadio Mané ndax kat jamono ji doxalut ak waa Al waaye kat yemut ci ñàkk a dox gi képp ndax ñépp li ñu jàpp te xamle ko moo di moom mi digganteem ak Cristiano Ronaldo neexut dara maanaam seen diggante rataxul comme ni mu meloon loole sax tax na këlëbam di Al Nassr bëgg-bëgg bi ñu am moo di jaay ko wala ñu able ko te journal bi nee na suñu demee ba mënuñu ko jaay mënuñu ko able dàqu ñu waxtaan ak ñancoo Sadio maane dagg contrat mu dem ci beneen këlëb doxal kon nag mi ngi dund lu métti jamono ji ak wa Al moom ñancoo Sadio Mané lan moo ko dikkal loolu la kenn xamagut maa ngi leen di xaar nag ci commentaire yi naka ngeen gisee mbir moomee journal bi tamit ñëw na ci Bamba Dieng moom nag ma nga ca Lorient Lorient googee ñoo nga ca Ligue 2 bu France Ligue bu France nag door nañu ko waa Lorient démb FC Martigues la ñu doon jàkkaarlool gañe ko benn bal ci dara bit ba am ca match boobee Bamba Dieng ko dugal waaye journal bi tamit fàttewul équipe nationale féminine basketu Sénégal maanaam jigéenu Sénégal yi démb la ñu door préqualification bi ngir mën a dem ci coupe du monde bi Hongrie lañ doon jàkkaarlool am ndam ci kawam tey jii nag la ñuy jogante sunu ñaareelu match mu soxal basket Brésil la ñuy jàkkaarlool match boobee dix-huit heures maanaam six heures lay door kon gaañi xaar leen ko journal bi tamit ñëw na ci Mamadou du Mamadou Niang nag attaquant la fi woon ay jamono ci équipe nationale bu Sénégal jaar na tamit ci olympique bu Marseille def fa moom Mamadou Niang nag ci coupe d'Afrique bi nga xam ne Sénégal demoon na ca ci atum 2008 ci lay wax coupe d'Afrique boobee nag Sénégal génnul sax ci puulam ndax ñaari match nul la am ak benn defet toog waaye li ko naqari nag bokk na ci ni leen coach bi defoon muy Henri Casper Sack ndax nee na bi Sénégal toogee daf na leen ñukk ni yàkk bu naqari ci réewu Gana loolee naqari woon na ko lool moom Mamadou Niang ñëw na ci tey jii indi ci ay leeral ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Thierry Henry le journal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag tàggatatul équipe nationale espoir France dafa démissionné moom Thierry Henry naam Jeux olympiques yi weesu doxal na ak équipe nationale espoir espoir France ndax mooy vice champion maanaam dem na ba ca final ba ñàkk ko ci kanamu Espagne waaye kat tekki na ay ndombo tànkam ci équipe nationale espoir bu France moom mii di Thierry Henry ay jamono mu nekkoon ca Barcelone ak Arsenal journal bi tamit ñëw na ci waa Lille Lille googee tey jii dañuy jongante tour préliminaire Ligue des champion Slavia Praga la ñuy jàkkaar lool waaye seen gone ji tudd Angel Gomez du mën a bokk ca match boobee moom Angel Gomez keroog bi ñuy jàkkaarloo ak stade Reims dafa am blessure bu mitti lool ca match boobee waaye jamono ji mi ngi yëg tan bu baax tey jii nag du mën a bokk ca match boobee nga xam ne këlëbam di Lille dinañu ko amal. ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Leicester rawatina Jimmy Vardy le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb la ñu door Premier League bi ñoom nag dañoo yéeg saison bii ndax ca championship ba la ñu nekkoon maanaam deuxième division bu Angleterre démb Tottenham bu ñoom Pape Matar Sarr lañ doon jàkkaar lool match bi nag neexoon na lool dañu ne bëreet waa Tottenham doxal dugal Pedro Porro moo dugal. dugal waaye bi ñu doxalee ba mi-temps dellu siwaat ci la Jimmy Ward di dugal bit bi nga xam ne moo tax ñu am benn poñ ñoom waa Leicester match bi jeexee 1-1 moom mii di Jimmy Ward nag nekkatul xale ndax am na trent 37 ans waaye démb moo tax këlëbam amuñu defet journal bi tamit ñëw na ci àlland moom ca pàccolig norvege bi mi ngi artu équipe yi nga xam ne ñoo nekk ca Premier League ba nee na leen noppi na à cent pour cent ngir doxal ci saison bii ñu nekk daaw ni mu dooree saison bi baaxul ji nee na yëgul dara ci yaram bi mi ngi ci jàmm mi ngi ci salaam te li mu bëgg moo di doxal ca Premier League ba moom ca pàccu Ligue Norvège bi ci fàttali bërki démbo la football centième matcham ak waa Manchester City dugal quatre-vingt-onze but kon du ko ndaw waaye nee na noppi na saison bi ñu nekk ngir doxal ca Premier League ba nee na daaw doxul ndax ay blessure sonaloon na ko naam moo jël mair buteur ca Premier League ba ndax am na vingt-sept but saison bi ñu génn waaye ren ji nee na noppi na ngir doxal ak waa Manchester City journal bi tamit ñëw na ci Raheem Sterling moom nag ba léegi mi ngi demandé d'explication waa Chelsea maanaam mi ngi leen di laaj lu waral keroog bi ñuy football ak Manchester City football lut ca match boobee nañu ko wax lu leer maanaam nañu ko létt wala ñu firi ko Chelsea nag dàquñu jaay ko waaye bu ñu demee ba di ko jaay du lambu ndax club bi koy bàyyi xel bari na lool bokk na ci yuufe bu ñoom Thiago Motta dañu ko bëgg lool jamono ji lim bëgg moom Raheem Sterling moo di waa Chelsea wax ko lu leer ñu jugee Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa yuufe ak jaloore ji ñu amal démb la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa sa démb nag yuufe dafa ñëw indi équipe bu xale ànd ak coach su kale muy Thiago Motta mi leen di tàggat ndax Thiago Motta nekkul mag waaye bi mu tegee onze am nag bi ñu ko xaymaa neuf yi départ titulaire yépp bu ñu leen xoolee seeni at matagul vingt quatre ans kon ay xale képp ñoo nekkoon ci terrain bi di doxal ñu gañe waa Como ñetti bal ci dara match boobee nag kenn du ca gone gii di Mbéngola moom buteur la passeur la maanaam dugal na jox farandoowam mu dugal Timothy Weah wi dugal na ca match boobee ba ca Cambiasso ñu am ndam lu ama am solo waaye bu dee doomu Serbie bi ñu naan Vlahovic moom am na ñaari bal de poto waaye ca cëppaandaw ga mujjul am bit ca match boobee Thiago Motta nag am na ndam lu ama am solo ci match bi nga xam ne moom la njëkk amal ca Serie A ba ak clubam bu bees boobee di Juve journal bi tamit ñëw na ci waa Inter Inter googee nag léegi ñu am gan gan gi doomu Argentine la mi ngi tudd Palacios jege na lool ngir xaatim contrat ci Inter dem jàppale Inzaghi loole la journal bii di Corriere dellosport xam xamle ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Juve ak i goneem la journal bi fësal ca xët wu njëkk wala coup de Motta Thiago Motta démb jaloore la amal bi muy jàkkaarloo ak Como duma ko duma yu miti ñetti bal ci dara match boobee nag gone yi doxal nañu ca rawatina doomu turki bii di Yildiz mi nga xam ne moom lañu jox numéro 10 bi foofee ca Juve gone gi naam dugalut waaye doxal na ca match boobee journal bi tamit ñëw na ci Lukaku moom Lukaku nag jege na lool ngir dem ca Napoli sauver Antonio Conte noonu la ko journal bi bindee li ko waral moo di Antonio Conte ni mu dooree Serie A bi baaxul dara Lukaku nag jege na lool ngir jógee Chelsea dem ca Napoli doxal journal bi ñëw na ci waa AC Milan boobee nag dañu leen laal li ko waral moo dañoo amal match bu njëkk ca Serie A amal match nul waaye jamono ji noppi nañu ngir doxal te doomu France bi ñu naan Youssouf Fofana moom xaatim na contrat foofee te gone gi noppi na ngir jàppale Fonseca mi leen di tàggat ñu jógee Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Carlo Ancelotti mi tàggat Real de Madrid le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag dafa mer ba futtoo ñi ko merloo nag du ñenn ñu dul jour yi muy tàggat ci Real de Madrid te wax na leen ko dajale na gone yépp xamal leen ne leen bégguma ci yéen ndax match bi ngeen amal keroog seen diggante ak ko dara baaxu ci amul engagement maanaam gone yi fulla ji ñu waroon jëmbat ci match boobee jëmbatuñu ko waaye wax na tamit ci ki ko doon arbitré tudd Sotogrado moom moomee di Sotogrado nag li ci ëpp bu arbitré match bu Real de Madrid day bëri ay njuumte yu mu cay amal maanaam ay erreur yoo xam ne daf koy amal ci match yi muy arbitré Real de Madrid moom Sotogrado waaye Carlo Ancelotti nee na bërki démb amal na lu toll ci huit erreur maanaam juróom-ñetti njuumte yoo xam ne amal na ko rawatina bi ñu dëggee Vinicius nee na loolee du carton jaune carton rouge la moom Carlo Ancelotti mooy wax ba léegi nee na nag goneem yi bégul ci ñoom te dajale le dajale ne leen ñoom ñëpp xamal leen ne leen béguma ci yéen xar kanam bi ma gis bëggatuma koo gis ci sama club. surnal bi tamit ñëw na ci doomu Croatie bi ñu naan Luka Modric moom nag noppiwul ngir bàyyi ca équipe nationale bu Croatie ndax coupe du bi ñu bëgg a jongante Kanté ci atum 2026 li mu bëgg moo di dem ce teewal réewam di Croatie journal bi tamit ñëw na ci waa Atlético de Madrid ñoom door nañu liga bi démb Villarreal lañ doon jàkkaarloo dañoo témboo 2-2 match boobee nag Sorloth daf ca départ titulaire dugal na bitam bu njëkk ak waa Atlético de Madrid bu dee Julián Alvarez moom tamit football na minutam yu njëkk ak waa Atlético de Madrid journal bi tamit fàttewul Joao Félix moom nag club bi ko moom di Atlético de Madrid juboo nañu ci lépp ak Chelsea tey jii lépp mën naa yemb waa Chelsea officialisé ay mbiram. ñu juge Marca yéene kay jël AS yéene kay Carlo Ancelotti la fësal ca njëkk doomu itali bi nag dafa mer ba futu te dajale na gone yi muy tàggat ci Real de Madrid wax leen ay kàddu dëggam nee na leen il est temps de mettre vos batteries jot na nag jamono ji seeni batterie ngeen chargé ko ba mu fees dellu dugal ko doxal di xeex ci terrain bi jëmbat fulla ju mat sëkk keroog bi Real de Madrid di jàkkaarloo ak Mallorca match bu bon la ay goneem amal loolee naqari ko lool ba tax mu am diskur bu yaatu lool jagleel ko gone yi xamal leen ne leen li mu bëgg moo di ku dugg ci terrain bi jëmbat ful la doxal te kàddu yi mu yëkkëti nag bu yàggut muy bërki démbu dafa niroo lool ak kàddu yi mu yëkkati woon daaw xam ngeen ne daaw dañoo door liga bi doxal tuuti waa Real de Madrid am bi ak Atlético de Madrid Atlético de Madrid gañe leen match boobee bi mu jeexee paa bi di Carlo Ancelotti dafa yëkkati woon kàddu yu dëgër lool jagleel ko gone yi ca jamono joojee nag la Real de Madrid gëj a am defet ci liga bi ba ni mu ko jëlee kàddu yi mu yëkkati woon daaw nag yooyee la yëkkati waa den jii ndax dina amaat defet ci diggante bi loole ci sunu kanam la nekk waaye wax na gone yi lu leer li mu bëgg moo di ñu jëmbat fu la doxal ci liga bi journal bi tamit ñëw na ci Gundogan moom nag nangu naa jóge ca Barcelone ndax nee na bëggul teg jafe-jafe club boobee kon noppi na ngir jugee ca Barcelone kon mën naa am balaa yàgg Gundogan jugee ca Barcelone dem ci beneen club ñu jógee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Federico Chiesa la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa option Chiesa gonek itali gi mën naa am mu dem ca Barcelone doxal ndax jamono ji waa Barcelone ñoo ngi càmbar ay mbiram ngir xaatimal ko contrat moom mi nga xam ne ailier te li muy def mën na ko lool journal bi nee na nag njëgam seerut maanaam li ko bàyyi ci Juve taxu kaa bëri ndax bu ca waa Barcelone defee quinze millions d'euros mën nañu koo xaatimal contrat gone gi ci boppam nag dàqul dem ca Barcelone naam am na club yu def ay offre ci moom bokk na ci Chelsea ak Manchester United waaye kat bu gisee offre Barcelone du xaar ndax dem ca Barcelone moo ko gënal loolu nag du samay kaddu kaddu journal bii di esport la jamono ji waa Barcelone a ngi càmbar ay mbiram moom Federico Chiesa journal bi tamit ñëw na ci club bu Barcelone boobee jamono ji nag club boobee dañu ko togg ci Masia bi maanaam ci équipe B bi ndax équipe B bi gis nañu gone yi nga xam ne ñoo ngi leen di fay woo ñuy dem ci équipe A bu di doxal ñett ñi la ñu mujj woo ñu football seen match bu njëkk ci Liga ba ak Barcelone A muy Gérard Martin Marc Bernal ak Pau Vitor ci ñetti gone yi kat keroog doxal nañu bi Barcelone di jàkkaarloo ak Valence te ñett ñi waa Barcelone am nañu lool yaakaar ci ñoom. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Gundogan la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa doomu almaañ bi nangu naa jugee ca Barcelone ndax xam na xel loole moo gën ci ëllëgam moo gënit ci club boobee di Barcelone ndax kat jamono ji xam na ne bu fa toogee. toogaay ba mu fay toog du neex dara ci moom waaye su fekkee nag jugee na ca Barcelone waa Barcelone dinañu am économie tuuti xaalis ndax bu demee Barça dina am espace bu ndaw lu toll ci vingt millions d'euros kon su demee dina xaw a arrangé waa Barcelone te loole jàpp na ne mooy li gën ci moom li ko waral moo di Hansi Flick mi tàggat Barcelone waxu ko lu leer dina départ titulaire am du départ titulaire comme ni ko ko Xavi waxee woon ndax Xavi kat bi Gundogan ñëwee ca Barcelone lim ko xamaloon moo di yow titulaire indiscutable nga maanaam dangay ngay départ force ci lu ñu dul waxtaanee bu ñuy togg sunu onze yow lañuy njëkk a génne loole nag Hansi waxu ko ko loolu bokk lool te jàpp na ni bu fa toogee du football lu bari loolu moo tax mu bëgg a jugee ca club ba moom mi di Gundogan bu dee Hansi Flick moom li mu am lépp da koo teg ci ndaw ñi maanaam équipe B bi ndax gis nañu ne day jël ay gone ci équipe B bi di leen yóbbu ci équipe A bi rawatina keroog bi Barcelone di jàkkaarloo ak Valence dafa indi ñetti gone te ñetti gone yooyee doxal nañu ci match bi journal bi tamit fàttewul Carlo Ancelotti moom nag dafa mer ba futu merewul